tiitaroo yow. tiitaroo ñu nag ndamoo ñu. ba mu bari kenn yàllaa ñu te waaw dëgg yaa ñu bëgg safoo yaa faale yaa ñu ñun ku ñu yëg ñu bari jox barke sëñ Fallou. dëgg la bii yàlla nga koy di fekk ci barke Serigne Saliou. amiin amiin dëgg la ko ñëw di ko def ay i at i at. amiin dëgg la ñu ngi

kon nag lii rek laa amoon leen wax nag ñi remercier ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex maa ngi jaajëfal ñëpp euh, vraiment di siyaare ñëpp ci bés bi nga xamante ni tey di bésub sëñ Fallou lu ñu naan bés bu dellu si moo neex ah sëñ Fallou de day koo xamante ni ku baax la euh, ku oyof ku bëgg nit ku yaatu man euh, dama xóoru sa ba du ma xool ko ndax baax gu mu baax ak oyof gu mu oyof ah, ñun nag yàlla boole ñoo moom. booluñ boolewuñu nag pour pour leneen yàlla daf ñu boole rek te yàlla tax ta lépp lu ñuy xool ci moom tamit lépp lu ñuy yóotu ci moom tamit xooluñ ci aller retour wala loo xamante ni dañ koy def pour ngisal parce que yaakaar naa ne ñun mënuñoo am bës ci kanam sëñ Fallou kon yaakaar naa ne bu ñu ànd moom dañuy ànd ak moom liggéey te yàlla tax loolu moo ko lal te ba si kàllaama tamit loolu moo koy yegali ah di ko ñaanal nag fan gudd ak wér yàlla sàmm ko te aar ñu làq fu yàq yegut làqaale ñu fa ñun ñëpp ci barke su ñu wax ci moom fii ba suba du ñu jeexal wala bu yàggee sax dañ koy catu kon nag dañ koy dañ koy dañ koy ñaanal euh, ñun ñëpp ñu ànd ñu ñaanal ko parce que sëñ Fallou doon na koo xamante ni ko oyof la man amul guddi amul ba bëccëg kenn mi mën a ma seede saa bu ma neexee laa ko woo su ma ko woowee su ma jot sax kenn laay woo kenn damaa soxla sëñ Fallou mu jox ma ko kon yaakaar naa ne cër boobu noonu yombul moom it mu jaale bu ko wàccee waat boppam ñëw ànd ak ñun. li nga xamante ni nag bésu tey bi li ñu def nii nag xeeb nañ ko trop waaw xeeb nañ ko trop trop trop trop trop bu ñu sañoonu mu ëpp lii bu sañoon mu ëpp lii parce que sëñ Fallou ñun lépp luñ ko defal lu nekk rek comme li ñaaxarañ loo waxoon rek moom Wally Seck lépp luñ ko jox àllarba la kon sëñ Fallou lépp luñ ko jox ñun àllarba la ci ñun kon amul luñ koy jox di ciy xel wala amul luñ koy jox di ciy xalaat lépp luñ ko jox rek dañ ko jox te yàlla tax parce que fii munuñ fi def loo xamante ni luy luy luy rëy ci kaw nit ñi la wala munuñ fi def lu jaaxal nit ñi parce que jëluñ ko pour loo xamante dañ ko jël pour comme leneen sëñ Fallou yàlla moo ñu boole ñuy ànd yàlla na ànd bi gën a rafet yàlla may ñu fann gudd ak wér yàlla laaxuñu fa yàq yegut ñuy gërëm suñu jigéen Ramatulaay borom Espagne te def na ci bés bi loo xamante ni yaakaar naa ne lépp sax moo ko def ñun defuñ dara dañoo ñëw rek indi lépp moo ko def muy ku bëgg sëñ Fallou nekk ba Espagne terewul nag lu ci bëri du ko fekkee mais nag da ciy def te feeñ mais nag ko ñàkk feeñal parce que nit booy def dañ la war di la feeñal mënuñ ko ñàkk feeñal loolu moo tax ñu di ko remercier di jaajëfal tamit waa kër gi di wax nañ suñu ànd ak ñun ak sëñ Fallou day soog a commencé dara amagul dara xewagul parce que ñun ñaan nañ yàlla ànd ak sëñ Fallou ba ko ci nekk denc sa morom kon yaakaar naa ne ànd bi du pour benn fan wala pour ñaari fan yàlla na yàlla def jàmm def taw feex ñuy jaajëfal tamit waa Benjamin famille bu Gambia ñoom ñoo nekk nii ñoom trois personnes yi ñu leen seen président Ablaye wax dëgg fa yàlla bi ñuy bi ñu invité Thiès. defoon nañ seen oto ñëw ba Thiès ñu ootewaat safar ñu ñëwaat ba fii fekk ñu fii nii tey ñu wootawaat anif bi ñu defar lii ne sëñ Fallou moo ko moom kon yaakaar naa ne ñi buñ na bëgg nañ ñun danañ ko gëm kon nag euh, sëñ Fallou groupe bi ñëpp a ngi sa ginnaaw gaa yëpp. ñëpp nag képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci Benjamin Family euh, sëñ Fallou amuñ luñ ciy soxor amuñ luñ ci iñaan amuñ luñ ci siis parce que sëñ Fallou géej la. dangay dem jël li nga mën a jël dem sa morom ñëw jël li mën a jël dem man ñun mënuñ ko jeexal ñun Benjamin famille ñi ngi woo ñëpp képp ku bokk bëgg bokk Benjamin famille ñëwal nga intégré ñu dimbale sëñ Fallou parce que artiste la ku oyof la ku bëgg nit la ku gëm li muy def la te koo xamante ni ku yaatu la ku oyof ku koo xamante ni jikko ju mu yor bëriwul ci artistes yi ñu ko yor kon ñëw leen ñu ànd ñu liggéey ñu jàppale ko parce que ñun loolu mooy suñu yoon loolu mooy suñu bëgg-bëgg loolu mooy suñu rêve ku ñëw nag pour ñu ànd ak jàppale sëñ Fallou ña nga ca ku ñu ci fekk ña nga ca ku ñu ci fekkul ña nga ca xaaruñ kenn ku ñëw ñu ànd ak yow ku ñëwul timi xayrul ñun ña nga ca la ñu nekk bu dee ñaar dañu dem bu dee dix dañu dem kon yaakaar naa ne kon ñi ngi woo ñëpp oto boo xamante ni puus mu dem ñaa ko puus mu dem ah, teg ci loxo rek am ci tiyaaba ji kon nag yàlla nañu yàlla defal jaamu ak taw feex ci barke Muhammad चलो What's the color? There's a me. d'accord d'accord d'accord cat cat cat voilà voilà voilà euh, sëñ euh, rek lu tuuti rek parce que déplacement bi sori na sunu yaay nii nga xamante ni bëgg waali ba jeex ci takk bëgg waali ba jeex ci takk bëgg waali bañ bees loolu mënul ne ku bëgg waali da ngay bëgg falu Ndiaye Benjamin loolu mënul mu jël doomam doomam tuddee ko Waly Seck muy xale bii ñii muy xale bi mu jël doomam tuddee ko Waly Seck bañ ko ba indiwaale ay papier am Waly Seck lañ ko tuddee mu def déplacement am ne ma nu mu waay mënul def dinaa ñëw ci bés bi parce que fàllu mooy Waly Waly mooy fallu ku bëgg nit ki ba tuddee ko doom kon loolu yaakaar naa ne dëgg gi bëgg gi dëgg la ci moom muy xale bii nga xamante ni Waly Seck lañ ko tuddee maman bi jugee fu sori dagg ay nelawam dagg ay yiteem dagg lépp ñëw teewee programme bi nga jaajëfal lamiñ bee damm xamul xamul wax dëgg yàlla man daal sama gaay wax dëgg yàlla sama lamiñ bee damm xamul lu ma war a wax waaw lu ma wax daal wax dëgg yàlla xaw en tout cas yéen ngi nii Benz Family sama mbokk ngi ni waaw sama mbokk nak lay seede limay wax ñom la koy seedeel ñom lay yegal ni tollu ngeen ma fo xamni wax deug yalla munuma wax ci yeen xawmu ma lu may wax ci yeen dama amul mo pour yeen ndax lu ma wax dama koy xeeb lu ma def pour yeen tam dama koy xeeb deug yalla waaw loolu nak bu bu dalee lu def lu dul ñaan rek man damay ñaan suñu diggante yàlla na ci seytaane sori lool lool lool lool waaw ci barke Seydina Mohamed ci barke weeru rajab bi ñu nekk ndax ku ne xam na ni tey la kasu rajab waaw pour ñi nga xam ne sax ñenn ñi mën nañoo gis bongo yi ah, xaw koo gisee deneen mais anniversaire bi saa yu jotee dañ koy feete man ak yéen ak sama famille kasu rajo yi saa bu jotee dañ koy màggal man ak yéen ak sama famille te lépp lu ñu fi gis rek seen yéene bu ëpp moo ko waral xam nga donc damay ñaan yàlla rek mu fayal ma leen man moom awma seen fay ñi ñëw ak ñi ñëwul ñi ma gisul ak ñi ma gis waaw yéen a ngi wax léegi Tulaay borom Espagne kooku man man sax dama koy yërëm des fois ndax fi fi mu ma toll ak ni mu ni mu ma def dëgg yàlla mais yàlla mi am fay daal yàlla na fay waaw ñu yàgg ko feete dem ba ñi ci jigéen am boroom kër ñi ciy góor am ay soxna ñu am ay doom di ko tuddante suñu borom lépp li ngeen bëgg ci man tam yaakaar ko ci man suñu borom di ma may kattan bi ba ma leen di gën a sigil saa su nekk loolu rek laay wax aram sëñ Fall daf maa yónni ci yéen. nekkoon ah, noonu la koy waxee rek macha allah. guma mi ci mbàngoog ndeer bi ci tuubaay nelaw ndongo may sa kura ak may sa ma ak Maxari may sa kura may sa kura démb jigéen tend mbay Fatim laam rafet nuru maam yowee nuru maam ndongo Njaay saa ndongo yuga ma bëggoon borom bongo bi rek ñu dawal loolu tuuti rafet nuru maam yeewe nuru maam ndongo njaay sa ndongo yuga rafet nuru maam yeewe nuru maam ndongo njaay sa ndongo yuga waa xam nga loolu ndeysaan dégg nga loolu Sarr waa bu ko defee ngeen may ma tuuti rek Benjamin Family ñun amuñu seen fay xam nga lu tax amuñu seen fay macha allah lu yàgg dëgg la te lu dul dëgg du yàgg te affaire bi lu tax du hasard sans papa mas da cee bokk moo tax yëfi du hasard di ci demee ngor waaye di ci jëmee jom ànd ceeg jigéen ñu baax yu rafet yi macha allah ak sama càmmiñ di nu mu tuddati fàtte naa tur bi ndooy ngeen nekk ay nit yu baax ngeen bëgg sëriñ Fallou fonk ko mais li may wax rek fonk ngeen xale bu baax xale bu ndeyam gërëm xale bu dimbali ay mbokkam xale bu am respect ci doomu aadama nii mu mel nii macha allah bu dul yéen nii la mel yaru joxe cër barke yonent bi gumba mi ci mbangoog ndeen mi ci tubaa sa yaay ñaanal la sa baay ñaanal la. la kon ñii lii ñuy def nii ci yow wallaay njaay danoo fay bor rek ñun sax lañuy ñuy bor waaye yéen amuñu seen fay ndax lii waykat bi wax ne ànd bu yàgg bi dëgg la lii bu du woon dëgg ba tey bàyyi ngeen ñun ak yéen kazu rajab comme nii ñun ak yéen ci anniversaire am ñun ak yéen bu koor jotee ngeen di joxe seen doole joxe seen xalaat bëgg sëñ fàllu kon ñun dañ leen di ñaanal yàlla di leen bàyyi ak yàlla ak yonantam bi ci barke Cheikhul Khadim mi yaakaar mu fayal ñu leen vraiment ñun amuñu lu ñu mën a wax daal ndax béggunu bég sax dafa ëpp sagal ngeen sama càmmiñ yi waaye teral ngeen ko à tout moment nag ci nii ngeen nekkee ak moom kon yéen dañ leen di fay di leen ñaanal yàlla borom bi sama yaay nag nee na kontaan na ci yéen dafa dem màggal ga waaye bég na ci yéen xolam sedd na ci yéen te ñun ñii nga xamante ne ñoo bokk ak moom nday ak baay bokk ak moom nday ñii di ay jabaram bég nañ ci yéen yàlla na leen yàlla fayal boppam. macha allah tabarkalla sant nañ waaw di ci ànd ak nag am internet yu Pikine Info TV ñoom ñi nga xamante ni à tout moment ñu nit nee naa la lu Fallou Ndiaye Benzema di def dañ ciy ànd ak moom di ci liggéey ak moom ñu bokku ndey ak baay na waaye bu may liggéeyante ak yow wallaay Azim dama ciy sawar xam nga lu tax dama ciy sawar da ngay bu baax bu riis tubaari kàlla mën li ngay def di riitambale xol yi comme ni ma koy waxee dina yóbbu naa di ñu zëzalaan barke yonent bi la taasukat ba waxoon rek laa lay wax. loo deeti xalaat waa BSD famille léegi nii toog ci sa wet loo deeti xalaat barke yonent bi waa Pikine Info TV nee naa leen da ngeen ko seetaan na ngeen ko xaar en direct ci foofu ci Pikine Info ñu dem ko saa naar ri tambale ba muy moom tout à waaw doo tilim gars léegi nag dama ni lu luñ wax lu nekk rek waxaat la yàlla xam na ni wax ngeen lépp lu fi wax lu nekk rek waxaat la waaye ñu ay xale lañ Faramaren boys di ñëw seenu waali di fecc waaye wax dëgg yàlla lu may bëgg a wax fii laa ko waxee ngeen di dégg Baay Faal amul xolub iñaan mooy mooy waali ci Ramadan pour wax di jeex mooy waali ci Ramadan fàllu ca teey ba ca teey waali ca dal ba ca dal waali te bëriwul wax bëriwul wax liggéey wax tuuti moom laa ko xamee sunu sunu sunu tonton mbay si day wax sax déele mu fatt gémmiñ gi na ko noppal liggéey moo na ci deret bi wax dëgg yàlla ay xale lañ waaye xam nañ ku ñu defal lu baax ak ku ñu defal lu bon dafa yaatu ouvert keroog ci ruta mbala bi lañ mujjee yéegee ci kaw seen bi mais day day kontaan duñu duñu tëggal yàlla sa jàmm yàgg lii yàlla nga koy feete di ko feete ba say sëtaati sët di ko feete moo tax ba ma maas wooyee ni ma anif besame bi dañuy dagg gato bi dama ne gars nañ dagg répétition bi daw gaaw billaay nax jaral nañu ko yàlla na sa jàmm yàgg seen ànd bi nag rafet na lii yàllaa ko def te day gën a yaatu di dem ndax lu baax rek ngay am tu le mérite lépp lu la defar rek tu le mérite saa ko liggéey yàlla na jàmm yàgg. waaw euh, di remercier nag euh, waa Benjamin Family encore une fois ndax euh, wax waxaat du bëri wax comme ni koy waxee wax ju yegul la waa Benjamin Family aw ma seen fay ci ñi ma gis ak ñi ma gisul groupe bi ñu yaatu lañu ñu génn réew mi lañu ñaar ñi ñett ñi sax ñoo teewal waa Gàmbi xam nga te loolu dafa rëy ci man du lu ndaw ñoom du dara ci ñoom. waaye man lu rëy rëy rëy la ci man comme ku mel ni ndooy aussi di jógee ba Louga ah macha allah awma seen fay yàlla mi am fay yàlla na leen fay yéen ñi nga xam ni it yéen a may message fu ngeen tollu di wax da ngeen bëgg a bokk ci Benjamin Family maasa ngi nii di président bi foog naa maa ngi joxe numéro bi ci samay yenn euh, xam nuñ koy waxee contacter leen ko xam nga ngeen jokkoo moom. dugg ci bagage yi mu ngi nii daal ay xale yoo xamante ne nii ku ci nekk mu ngi liggéeyam ay responsable yaa ngi dégg ay ñu ñu mature te xam li ñu bëgg moo tax ma jàpp leen macha allah kontaan naa kontaan naa fa kontaan yam fa laa tàmbalee jërëjëf ah Kazu Rajab bi tam waaw ñuy ñuy ñuy ah, ñuy ñaanal rek ndax Kazu Rajab moom bésu ñaan la bésu cant la. waaye bésu ñaan la ñuy ñaanaat suñ fàllu borom bés bi li may wax loolu man ak moom la direct gis nga gis naa yokkal ndax ma ak sëñ fàllu direct la comme appel vidéo yokkal sama gars yit bu kenn xaj suñu diggante macha allah jàpp naa leen jàpp nañu ma yàlla na yàlla laf cat euh, PISPA it mu ngi nii borom kiin fat place ah di ndaanaan pire moom it bokk ci Benjamin family ah lu baree baree bari it yi ngeen di gis Benjamin di ko utiliser ci moom lay jógee moom xaarul anniversaire xaarul màggal xaarul weeru koor lépp mi ngi ci Benjamin macha allah di ñaanit samay mbokk ñaanalal ma ko ñaanalal ma ñi mu kontaan naa <laughs> merci beaucoup